musiba naaru laay moo xew foofa ca mbuur euh, benn xale moo toppoon riirum kankuraay daal di daanu ñu dëggate ko euh, ba mu mujjee ñàkk bakkanam muy affaire bu metti loolu xew foofa ca mbuur